bu njaboot nag bu bokkee ci njabootu yàlla gi kàddu gi def ñuy wax ne ñaar ñi sëy ku góor ki jigéen ki war na déggal jëkkëram te jëkkër gi war na yërëm jabaram noonu lañuy mottalee lépp lu ñu yàlla sant te di ànd di dund te di yar suñu njaboot ñu déggal yàlla ñu nekk benn famille chrétienne dal di liggéeyandoo ñun ñépp ci nguuru yàlla